asalaamaaleykum network bi sa yéen network ndeysaan jërëjëf ah sista Aïcha mm-hmm. nuyu suma sista bi di sista Aada Diba Aïcha Sow pour la jéere ardo boroom nag yi mm-hmm. oh, di ba ah, di kontaan lool ci dala bi ngeen ma dalal fii ci Sahel Network mm-hmm. ah, xam ne fii moom duma fi gan sax because of xam naa ne bi ñu koy ubbi maa ngi fi woon waaye nag lépp rek lu jot rek yomba ah, waaw kontaan ci yéen bu baax ñu gën lay xamee ci Ablaye Samba. macha allah Ablaye dañ bëgg nga ñu kan ci gàttal. man bu ma sama bopp wala wax ci man sama xel ak sama famille dafa am lu ñuy bàkkoo. kon foog ma tëgg ko. la sama famille di bàkkoo ñu bokk ci famille Birane Mane damay nuyu nag ñi nga xamante ne ñooy seetaan ci network bi yëpp den di tatagal di leen di jëfal parce que man ku ma xam ne xam ne man baay tam mooy sama baay ñu ne ko booy gànjaay Ousseynou Samba yar ma ci ngéwél yar ma ci aar ma tarbiwu nag ba may xale nekk ci aar dara xaw ma dara lu muy ngéwél ba tey jii yàlla def tey jii ma doon artiste di ko def sawar ci torop ndaxte famille géwél bu mag laa juddoo ñu koy wax famille Birane Ndumbaan buur géwél brand mana na jengul len ku jengul du melni mo am sala bur jambar nako musu bur sereer la biraan bay ko ko do fe sama ma desu gel brand duma ci taw yu bax ñu ne buñ tar de jeex jom jeex mbax jeex tabe jeex ne kuy mën na yëk ci sin ndax te dano am sunu maam nek kajor nek seen gaday kajor ñoo tok seen doon gewel nak pire doon bur gewel te loolu la yàlla ya dogal ndaxte dañ ne lu nga don soo ko bañee rafet nga gën ñaaw di nuyu sama géer yu baax yi seetaan nga xamante ne nangu dara naqari ma bëggal ma seen bopp torop te bu ci kanamee dinaa lim ñi nga xamante ñeen si mm-hmm. macha allah mu doon lu am solo ñu ànd fee géwél boo xam ne kenn du ko laam-laamee ah géwél si biir géwél ah dama ne fu géwél nekk rek day xumbate dagan euh, tey euh, ñu am fii ku ñëw euh, Ablaye ñu kontaan si yow ñu gën laa xamee si Baytama mm-hmm. Ablaye man tey su ma la doon laajte Ablaye yow kañ nga commencé comme sa tëgga sabar bi ak naka nga ko jànge Wow, sista aada diba nga xamantene borom badi bu dañ ne suma bu so da wax ne diba yaay ñom ñom ay buur lañ te yow sa buur boo ma man mi jottum gewer dina content trop de wax ko parce que day neex sha allah waaw ndaxte ku ne sa mama la toña mhm. sa mama maama kon buur tooñ la nga doon doomu buur ki tamit maama kon lolu tooñ ko ma sama mam tooñ may ko to doxal <laughs> lolu tax wax nga doon géwél mhm. door naa ko nag ci early age ndaxte demoon naa school ay boo mun a read mun a write mm-hmm. suma papa di ko def bu ma yeewoo di gis suma mag yeeg sama doomu nijaay ak ñu mu amandoo amee woon ay ñoo xam ne doon jàng ci moom mbir mi mm-hmm. parce que suma papa moo daan tëgal ifam mbondi bu dégg ifam mbondi xam ne suma papa moom la jëlul Sénégal mu leen koy percussion mu téye mi sabar yi ak ak tama mm-hmm. dafa daan tëgg sabar di booleeg tam man ni may tëggee tama noonu laay tëggee sabar mhm. ma jàng ko aali éeg mu métti loolu nag ma jàng ko jàng ni bu métti ndaxte ñun comme ni ñu ko jàngale dañu jàngal ne xam-xam da koy jàng moo taaru nga xool ne looy am bu subaa lii ñëw nga xam ne mooy loolu mhm. mais jàng naa ko jàngin boo xamante ne dañ ma teg ci yoon di ma ko woon ma ci am ci teey gëm ko nag dama ko gëmoon ndaxte lu ma bëgg la sama deret la mhm. bu njëkk ma noon bañ sax parce que dama xool suñ ne xooj nañ der yi pour moo ñoo xoos der yi pour ñu defar sabar yi boo jugee der yi der yi xeesaw xeeñ nga bugg xam nga ngay daw yooyu yëpp te fekk na loolu nga moom demal jëli ji ko suma ma dama ne jëli tey jii mooy xeesaw waaye moo lay solo mbubb set mi kon demal ci moom nga xoos ko defar say sabar def say instrument ba mu rafet ba mu baax ngir soo ko tëggee ki nga koy tëggal nga kontaan. tegeen yu mel ni ñoom cuul xam nga. waaw ñoom tarmbat ah ñu mel noonu ñoom dama yegul ndiol mais ça va dafa of course why not because of nek na lo xamne instrument bi boko momé dang ko wara mëna liggéey du ñepp ko mën nak mhm. parce que bon xam naa comme ni ko rek sabar ñoom cóol ñoom gorong ñoom tarmbat yëpp nga xam fu mu tëgg rek mu yëngu ak mbëng mhm. mbëng mbalax am na xob-xob baalu xob-xob yooyu ay sabar yoo xam ne turu sabar la ak ndeer mm-hmm. waaye sabar nag dafa nekk noo xamante ne comme sabar séeréer daf ci am doole ñun séeréer lañ man séeréer olof la mm-hmm. nanaam séeréer paax nun foog séeréer mi ne sin naa nun Ablaye Sam mm-hmm. Birane Mbaan Buur Géwél meexe ref meeke Sahel Network oh. layaa fa wiir me ka andoon naye ten refu cosaan ndaa mi mi naa nun fop maa di mandinkoolu mbaalu konton mbaalu tent mbaalu jeey la hmm? na muso bu man din ko let I speak five different language masha allah laf cat and that's something that I am proud of myself li nga wax nak loolu deug la hmm. sabar na dafa bëri façon hmm. waye sabar ci re ko moom xam nga ndeer moy deug bi ndeerole hmm. moo tax ma lak seere ci biir émission bi because of ndeerale boo ko dégg mooy li ñuy teg ci bi moy deug bi ndeer mom lañ wax ndeer sabar bu gudd bi nga xam ne lii din drum lañ ko wax comme bu nekk guitar moy comme Jimmy mbay bi muy amee bu ne ni Youssou Ndour dem ni bu ne ni ay dem na <laughs> nga am cóol cóol nag boo ko déggee mooy làmb lamb lamb mooy doon o lamb o lamb o kii ne o xekke kaa lamb keeke comme man dama doon lii mooy lamb parce que dañ ko daan tëggal buur yi bu ñu ko tegee nga xam ne bàkk bi kër kër diw la kër diw dara ma fa xew boobu téléphone amut communication amut suñ maam ñun ñoo daan nekkoon seen bibliothèque ñun ñoo nekkoon seen communication ñoom ci géwél ñoo daan communiquer ñoo nekk bibliothèque boo sax bu bëggee wax dana géwél jógal wax su géwél jógee wax rek dafa war a wax lu lu accurate loo xam ne du offen kenn te dina baax te xel bu rafet. géwél du yàq géwél dafa war di boole di nas di ñaw. waaye géwél du nekk sax te ñëppay dégloo. bàkk bi ma mujj dëggoon nii suñ kër boo ko tegee ñu xam ne sàmm Birane Ndoumbane waa kër Birane Ndoumbane la hmm. waaw xam nga soo déggee fañi fañi fañ fañ fañ te waa caa caa xam na loolu <laughs> siw na. Cerno Sarmo tam sama ki séeréer dëgg Sarr moom sooy munu jëm kàngu biram na ma jën Sarr yaa foo ñaam ñaam kee ok leen kooku sama géer la nuyu naa ko de passage nuyu naa ko bu baax baax kon nag Cerno Sarr gaawal ñëw mee dara parce que man la tag lu waxal la am na solo comme que sa sa nga yow sa na la fa sori am nga <laughs> waaw ci nit ñi li ñu koy waxee parce xam nga tukkiwuloo de mm-hmm. waaye yow sa euh, sa liggéey mm-hmm. yóbbu na la fu sori waaw xam nga nit ki ñu ne danga war a gëm sa bopp mm-hmm. doomu aadama boo gis lépp looy dugg mais ci booy dugg da gëm sa bopp ndaxte yàlla rek ay maye nit def na loo xamante ne du lii sax lii gën ko ëpp fulla waaye gëm-gëmam ak jomam may na ko mu yegg ci foo xamante ne moo tax nit day gëm lu mu jàpp rek te gëm na ne war na ci mën a tekki rek na ko fulaal man na tama bi soo gisee ma tëgg ko deret la njëkk di doon leen sama bàyyi daan koy def tey jii daanaka man ma dañoo fa nekk di ko def te famille bi ma bokk ñu ba duñ ko day def sax waaye man dama koy def bi ko dama ko bëgg ndax sama deret la mhm. nekku na ñoom mun dañ koy def ngir bëgguñ ko waaye dañ ko munut mhm. suñ ko mënoon def ko mu doon loo xamante ne bon ku ma xam dëgg dëgg dëgg ñu bëri boo ma gis ñu xam ma mhm. sama doomu ndey sama xarit buuba bàcc li ci lii lañ xamante ndaxte foos dee ba ma dajeeg moom lii la tax ma xam ko parce que dama daan tëgg set setal Abdou Aziz laa doon tëgga moom mu ko gisee moom dabaax ma ne buuba ma ne ko foog ko américaine daal foog ne du gambien sax foog naa ne déggul anglais sax ma naan ummi ndekete ummi jabaram la soxna ummi ma koy nuyu bu baax aw buuru këram yaay xale yi nuyu naa la ndeysaan ma ne ko man ne doo ma booleeg ma mun koo ñaan xaalis américain bi kii moom daa déglu ak ak alkasiira dama ko dégg waaw dama ko dégg mu làkk english english bi suite daal xam nga ñu américain mu lekk ko daal xam la may may ma ne ko hey sister fekk umi dafa may xaalis ma ne ko sister umi te bés boobu laa ko xam mu ne ko dimbali ma ci waa américain bi ma mun ko waaye nag wax ma turam. ummi dafa ree ba wow. ndekete waa ji ni may toog ni ma koy wax yow mu ngi jàkkaarloo ma ma dégg de. may dégg mel ni ku dégg olof. mel ni ku dégg olof la. ma ne ko waa ji laa bëgg mu baatara ma jël ci moom paquet. kii Amérique seen américain bii que moom déggul xaaral ni kasiira. ah loolu foofu la bàqal ma ma bàqeewul. ma ne ko ummi. Thank you. mooy mbiru corona la ñuy wax. <laughs> te xam tool yi dëkk bi mooy quarantaine bi ñu ci laaj ak yooyu noonu nit di war ñu am stress. parce que am na loo xamante boo waree xeex ak moom te ragal ko doo doo daan de. mbër muy samp mbër. ngër ñëw ba ci combat bi war a bëre ragal ki ngay bëre doo ko daan da ngay ñeme a xool looy def ak ak ak statistique ngay yuus ak expérience bi nga war a bëree. kon Oumy Bathily nan la war a moytoo noonu. ah xëy Oumy nooy mootee saytu. Ah. moo toppoo saytu. Ah. ma yow la bëgg. Ah. nee na ay love you. <laughs> well ñu gis ne ah, ba tey ah, lu neex moom du doy. ñu gis ne comme drôme bi nga amee nii mu ñëpp xamee ko si tama. Mhm. fu mu yëngu rek lu ndaw la waaye lu fu yëngu rek ñépp xam ne tama yëngu. waaw moom mooy gàtta sax ah waaw yaa ma gën a xam. <laughs> ñu gis tama bi nga xam ne doon na loo xam ne comme traditionnel la foo mhm. dem fekka ko fa Sénégal soo demee di nga fa gis tama Mali soo fa demee di fa gis tama ah soo demee ay dëkk yu bari di fa gis tama waaw ba Nigeria waaw ñu gis waaw mhm. soo léegi gis ne comme doon na lu nga xamante ne lu am solo la mhm. nga wax tuuti ah, si si yëfi tama tuuti rek nga ah. tënkal ñu ko si lu ndaw waaw tama nag comme man xam-xam bi ma ci jot a am bu gàtt ma ci toog a am suma papa moom géwéli sabar la mais comme xaritam yi dañu doon tëgg tamate moom ci baan la nekk. bi Yamar Thiam génnee Canary maga Assane bi tëgg Youssou Ndour. ñoom dañoo jamoon ba jaaxle doo am ku tëggati tama comme moom waaye sama papa dafa dem replace ko fa. fit fa nag fit ko xam nga nga replace nit fit dafa yomb. yombul lool su ma papa replace ko fit fa tëgg tama man ni may tëggee tama moom laay tëggee sabar ndax sabari laa jànge sama papa dafa mosoon di tëgg ba ci kanam ba nga xamante julli jot na ci programme lañ nekkoon. billahi azim mu julli jot moom waxtu bu jotee moom dafaa bàyyi li muy def mu dem di julli ji jël tama bi geesu maa ngi gënoon tuuti ñëpp maa ngi mbalax tungu ne mënoo ko ma tëgg maa ngi jàng tungu ne laa doon mbalax géwél yi xam nañ li mbalax tungu ne sama papa wekk tama bi nii ne ma am tëggal waaye bul ko bënn maa ngi julli ci keroog laa door di tëgg tama kenn jàngalu ma sama papa mus na woon ma ne note bi fii la wala fii ngay bokkee keroog laa ko kottu raaw ba ma kottee rek yëkkati ne mu gaay naa loxo ba neex na de <laughs> mu ne tam mu ñëw ma ne waaye tama waalo waalo yi ñoo ko moom. nekk na instrument boo xam ne boo déggee waalo waalo. saa rek sa fi fii sa bay fi xale jaar mom foko ko dégg rek xam nga waalo waalo yaa ko moom dëgg dëgg ñoom foo ko gis nga famille caameer yi tëgg tama dëkk na ne géwél yi jël nañ ko seen loxo ndax te géwél yi bari mën nañ tëgg tama sha allah gam yëf yi am na xale yi mën a tama ay ndaanaan ay boy yu mën a tama ñu ma dàq tëgg tama so di fi jeex bari nañ tama nag ñooñu waalo ñoo ko moom ndax dañuy fu comme tukulo la daal comme tukulo ñoo ko moom bawde de Youssou yusundul ne ko Assane Thiam Diom bawde ya mom li waaw fii bawte bawdu lii am na yi am na ci tur ci ñoom ñoo ko moom tama nekk na instrument boo xam ne dafa yàgg dafa yàgg jógee ba waalo diw raam dugg si léegi nag olof yi dañ ko jël dugal ko ci musique ba nga xam ne dafa populaire mais tey jii suñ duur fu mu dem ñeneen instrument yi nga xamante ne bëri nañ waaye tama dafa neex a gàddu ten tama ci benn baak yow mu nga àttan nga ko ah. yes ten tama ci benn baak lii fa oyof oraba suñ la joxoon tey di sabar nga gàddu ko di dem mhm. dafay diis mais soo gàddoo tama dina oyof tam mhm. moo ko gàddu dama moom fu ne mhm. mais nag nekk na instrument boo xamante ne soo suma maam yi dañ naan jinee ko moom boo xoolee buumam yi tati tout la waaw tati laay wërale nii boo ko compté ëpp na tati tout la tati tout la ngay gis ne nga am ko kongo gi ge kongo baa nii kongo gi moo koy mooy téye der bi foofu moom la fa lañ koy ñaw ak caas yu am geño xam nga lii geño la soo ko xoolee bu baax xam ne lii geño la comme nu ma lay mun a wax nii comme lii ma lii geño la lii geño mooy téye xiir gi ak caas bi nga ñaw ko ci kaw kongo gi lii dañ koy ñaw boo koy foor da ngay ñaw da ngay nas di noti moo tax ñu ne àll jinne la te xool nga leen tuutee nii boo ko ne tarañ foofu yëpp fiy toj mhm. téeméeri sabar bu ñu leen di tëgg benn tama nekk ci biir da koy dégg estimine bu garaaw la. dafa doon loo xam ne fu mu teewul daal du saf. fu mu teewul du saf. moom la moom lañ waxoon ci cooj bi dootoo duggati cooj sabare bi nañ dugg cooj ba mu des tama tama bu duggee cooj bi day day jaxasoo la la wax sama kay xajul fenn fu dul ci géew yeeg ñaari gorom yeeg waalo waalo yi ñi fee tax jaar bi ñi fee tax jaar nele dugg ko ci musique bi mu nekk instrument boo xam ne dafa neex dafa neex a déglu parce que dafa am ay different voice comme par exemple mu nga mu nga na mo won la fi may jóge ak fi may wàccee di nga dégg lu xam nga no dëng lu bari señ bokk gëwël ñi def ñam mom ah, wa doon na lu am solo tama doon na loo xam ne lu tuuti la waaye foor na foor boo xam ne foo ko tëgg rek ñëpp yëngatu man suma tànka yaa ngi lakasa léegi lii naka la lii galam la galam tama dafay am galam lii dañ koy liggéey lii der bi euh, comme ko how to bant bi bant daxaar la mhm. mais dañ koy yett di ko bank di ko lem di ko xoos di ko yett mhm. ba mu rafet même affaire moom affaire jinne la mhm. parce que lii boo ko xoolee rek da ngay xam ne lii am na something bu ko soob dafay jaaxle daal dafa dafa attractif te noonu la neexee soo koy tëgg da nga koy sentir waaw balaa mu doon neextee ji lëmbal bi door gaa yi xam nga daal ba ma sol sama caay xaw oh. na king mu ñëw <laughs> mhm. ñu ñëwee rek ñu Network nag John. moom laa fi fekk démb. bu doon nit ko baax. ak suma waa ji. Wilfred Boni nga xam ne Wilfred moom ndaanaan la. ak ki nga xamante ne xam nga rek kaldu. kaldu kenn du ko fàtte soo bi bisaab te soble ba xaw a bëri. <laughs> ah mu am kaani ca sabal. nga def li moom mu sax boo ko defee nag ak jënu waas. <laughs> waas yi digg yi nga kaldu ko. Ah, loolu la ñuy bañ de <laughs> corona réeway léegi ne ne ku ci tisooti na nga daw waaye nag sama gars Sahel Network. definitely fi affaire bi fi la. Deug neexul ah. nekkul ne damay ndax ndaxte ragal fete day xañi mais damay wax ni samay fans yi samay xarit yi samay doomu ndey sama am di jàmm yi. ñi nga xamante dañ ma bëgg te Yalla tax. Ma fi and ak ñaari xale yoo xamante danoo baax. te yeen ku leen gis xam sen seen kanam yi poñewuñ leen. seen gërëfaas njàmpe wut. kenn wuñ koom dina defar te yaakaar naa ne yar rek am solo adduna loo ci mun munti def te boole koo yar dafaa dem yar ak teggin mooy foundation African child bu fa amee foundation boo xam ne yar ak teggin la rek fu mu dem mun faa dëkk mun faa toog dañuy jàngal ñu ne am ngor demaa ne la gore tur la dëkk ca Sénégal waaye tur nit la ci Gambia waaye jikko la ci doomu aadama te mu ko war a fonk mooy gore Sahel Entertainment Sahel Network. TV mu ngi daw TV bi mu ngi daw yéen koy dégg yéen koy gis yaakaar naa ne lu baax rek lañ indil Gambia. dëgg te doomu réew da ngay jël lu baax nga yóbbu sa réew bu yaatal ko nag. Mm-hmm. ndax te ne xëj na ci lépp ku ne lu ne ku ne lépp ñëpp lu ne ku ne ku ne xëj na ci. Mm-hmm. nañ waxante dëgg. mais fi ku siis bokkoo ku soxor bokkoo ku añaan bokkoo kon Sahel Network. gàcci nga la ma yéen moo ñëw fekk nak ak sama sista yoo xamante ne aada débayaabe sooyaa débayaabe jooral macha allah sopp la jéer arda borom nak yi tu aisha Sow aisha Ndour di ñu bax di ñu jown bu bax di ñu suma waji Kaldo Wilfred xalé yi macha allah amuñ morom mais buuba bàcce dafa bax gis nga ma lay nitel adam dog bo xamantene xamante ne ma ko dogoon mais bima ma tasee américain laa ko foogoon because dafa yàgg Amérique yi naa waaye ci biir wax ji mu waxee rek xam nga ku làkk-làkk bu ñor bu gaaw da nga koy foog ne mooy loolu ñun xam ne ñu ñuy làkkee fii waaye nit ku dal la mu am boo xamante mu ngi bugg a ree mu ngi jàkkaaroo man maa ci kaw lu ne lay wax ma naan ko xëy waa ji dëggul sala la ma lay nga te mu ngi ni paquet la yor caméra am bu rëy bi man caméraman la man def naa caméra mm-hmm. ndaxte bu aar bi demul fii nga dem ci lële parce que mm. famille kenn du ko amee ci benn métier. te gis naa ne yëf yi moom mu ngi xaw a dang fu mu nekk nii covid 19 bi dang na ñun géwél yi a sonn géwél yi sonn nañ ñun government dafa waroon ne bërët ne ana géwél yi ñu ne mun nañoo toog leen mm-hmm. wax leen bu kenn xewati ñun seen tasaay ne bu kenn xewati fekk ñun jox nañ ñu bañ toog bi ko soob ñun famille man lañ te ñun bañ toogee du tey mm-hmm. te ci xewal la ñuy amee sa instrument yi nga teg sa set teg sa bagage yëpp sa booy teg ñëpp yow every weekend sax at least bu demee da ngaa dóor benn programme ci ngay joxe dépense sax bu dee ñetti fan mën a ñeenti fan mais soo toogee lu moon wanu woon doxuloo dépense fay luyaas ñëw laa taxaw ndox cash flow courant li nga war a jënd crédit communiquer war a def da la nga doon def nga war koo def dëgg la nag dañ bu nit ñi ñëpp jaaxle am problème parce que coronavirus bii li ma koy wax rek ma ne ko àdduna dañoo jaaxle fu adduna jaaxle réew mu jaaxle doomu aadama yi jaaxle docteur yi jaaxle ndax pandémie bi ñëw worldwide sonal nit ñi mm-hmm. dëgg la fajaru boo fajoroo da ngay njëkk a fagaru mm-hmm. boo fagaroo moo lay gën ngay faju ci ndax ku faju ku fagaru doo mën a te leen di faju ci mm-hmm. bul wàll kenn bu la kenn wàll mooy toog leen seen kër lañ wax waaye ndax ñun mën nañ toog suñ mun a toog suñu kër yi yóbbu la dara naxari fii la yëpp di xewee fii Sahel Network TV maa la boolee Boubacar Bathily boo paree mu baatare la ah, ah. set la lay jox ah. maa la wax lii ah, dañ ma def ko de waaye nag mhm. damay ñaan nit ñi na corona lañ wax dama bëgg doomu aadama ñu am solidarité am yërmande parce que aduna dafa jeex yërmande yalla sega moy borom yermande na nit ñi am yermande ci doomu Pas yi di yere yërëm parce que olof jaar dafa ne kula ñewé dula dolel la dooleel de ku la yéene te mu nga gis sam mu dem nek di gentleman bëgg bopam rek romb la nga jépi ko méré ko fekk mom dara yoru ko ni muy am ci ñun guerrier ko koy jox nit ñi koy may do may is proud of it mu ngi proud ci lim doon yow nga koy soxore na ki dafa nangam ni ki ni fekk demo non ñun ñëpp doomu adama lañ nañ am solidarité taxaw am fit buñ ragal ñu faat Covid 19 bii ndaxte li koy gën a mun a sonal mooy buñ bëggee toog suñ kër nañ am solidarité gis naa nag ñu bëri ñooy def solidarité parce que du ma wax ne excès ci man du ma wax keneen ñu solidarité ndax joxuloo ma ku ma joxul nag du ma la waxal joxuloo ma dara may taxaw ci télé naan la ah diw wala taxaw ci rajo naan diw moo baax. déedéet waaye nag am na ñoo xamante ne yàlla dafa def ne yàlla daf lay boole nit ñu baax. Mm-hmm. soo soo tëggee ñu may la boo tëggul ñu may la soo ñàkkee sax xalaat leen ci ñoom ngay daw dem boobu yàlla boole na ñu ñëw te ñooñu def nit ni dañ leen leen gërëm parce que nag toujours du mun a man tey ji Aïcha aada ma mun a ñëw nga may jox boo ma joxee tey mën naa toog du ma fi mm. ñëw ci yow nga jox ma ma war naa toog weer du mais soo demee ba xam ne ñi nga xamante boo leen koolee ñi nga war a la may sax nga oolee ñu ngay nëbbatu mm. musiba anaarulaay am na nañ leen solidarité duñ musa deewandoo mm-hmm. waaye nañ leen solidarité bu ñuy dee benn benn parce que kenn ku ne disuwul moroom te loolu mooy ñaanu ma ko yàlla exemple laa joxe ndaxte ku li nafsin saaqatul mawt kenn du ko ragal ndaxte dina mos a am waaye nañ leen dimbale bi dimbale wante solidarité rek moo ci war corona tufli nañ ko ba mu tooy ba sonn mu bañ na du dem du ko tufli dañ ko tufli <laughs> te waaye taxu sang nañ ko waaye mu bañ a set non day dafa war a dem. day dem. weeru koor baa ngi ñuy jëf si. soo doon plan balaa weeru koor jot nga dem ay juróomi programme plan si sa weeru koor wala yow sooy ñëw programme yu ju ngay plan boo amee benn junne di denc. bu weeru koor jotee da ngay mën a jënd sa bopp nangam nangam tuuti téye loo ci jot am. loo ci dem woyaan ñu jox la ko mais soo mënut a dem woyaan yi man ci ngay woyaan doo demee doo ko mën a gis. bi ko soog dañ ne quarantaine nag ku ne nga moytu. solidarité bu amul dina de. ñoom ñu fàtte ñi nga xamante ne yoruñu ñun ñoo yoruñu ñun baadoole ñu fàtte ñu tukkee guma nag damay ñaan yàlla xanaa bu xanaa bu ma bàyyi si ma wutal contrat ma dem tukki ah bëgg naa ko de bëgguma nag toog fenn damaa dem rek wane aar ak cosaan mm-hmm. ak culture ñëwaat man bëggumaa toog fenn parce que fii ma gën a ndax moo ñëwee naa la mbii mi nga ne ma yow to soppuloo jéeri ma ne ko suumoo lee mu ne may bii jéeri waaw ma dem wax ci séeréer nam nu mbii ñu ne ñu ne meen waaw <laughs> ma dem ci soo joolaay ne leen kasume ñu ne kasume kepp ma ne ma leen saafoo ñu ne ma sume ma ne ma mbaax daa ñu ne ajam tun mm-hmm. on jaaraama bi doo kon nañ leen bokk ndey bokk bàyyi ànd di dimbalante tax te yàlla mm-hmm. ba mu jël bindee doomu aadama yi ni mu bindee loxo yi la yemalewut mm-hmm. yow mun nga am lu bari man ma am lu tuuti ki am dara amul dara mais soo fekkee ne man ngay dimbale ah, bàyyi kii kii dina dee dina parce que am na man artiste am naa ci man tullu tuuti waaye fekkee ne tey jii yow danga nga génnee war ma koo jox man mi xamante ne am na at least tuuti man ni kii da moo yoru dara jox ko nga jox ko man tam ma jël am lu ma gaf ka ne ko de dolli naa la ci bu yàggee kat doo sonn kon kii di sonn parce que boo yoree lu bëri téye ko nga ne pour man la dimbalewuloo ci keneen kenn bu naree sonn sa buntu kër gi lay daanu si rek de kon nañ leen dimbalante def solidarité di déglu nag double HO bi World Health Organization because of lii mbiru docteur la waxuma ne ñaan dañ war a ñaan dafa jullit am féet da ngay ñaan waaye docteur nag ku feebar te lopitaan ba docteur na ma lay faj boo demee docteur bi moo lay téye di la teg affaire naan la fii lay fi mu métti ngaa ko léegi sa lii ngi nii nga ah. comme ñun buy feebar dañu dem dox docteur si boobu nu ñuy docteur yi waxal mhm. nañuy dimbal ñu def ko ndaxte tey jii yow mii li ngay def nii xëy na kenn ku ak góor a mboot ni mbedd mi nit ne ko kaay def ko du ko mën a def. gis nga moo baa ngi ni quarantaine baa ngi ni te man nii xam na moom ñun sax man gars yi dama jege. ñun sax gars yi gëj naa dégg ku ne man yow eh, Ablaye Samba bàkkal diw yow maanaam mu baatare gëj naa toog fifty di naaw. contre di naaw. waaye am na ñu soxor ñoo xamante ni. benn tuuxoon na da la ñuy daw wecceeku def ko ay pound pound. paon da xam nga tuuxoon rek boo ci booy booy maye paon tuuxoon rek fii ngay fanaan. ba pare dañoo soxora da ngay tama rek dangaram dangaram ñu nga xam nga maye a am ambiance. waaye soo bëggee def benn tuuxoon rek xam nga loolu du am. waaye borom tama bi dina dee te <laughs> tuuxoon rek naan nii borom tama bi day gën a say. a tama. mu jeex. kon ñu leen di sant. di leen di gërëm ndaxte waxtaan du yem ci benn. dinañ fi ñëwaat def ay yeneen ak yeneen. di nuyu nag ki nga xamante ne mooy Bouba Bathily. Thierno Oumy Bathily. sama xarit suma broda dama suma broda laay wax. ndaxte ubbil na ma buntam te ñeme naa ko trop. te nit ku ma bëgg la man xam naa nit ku ma bëgg la. ndaxte gis bëgg yàlla koy def ci jaam bi. min bañ nag ci jikko lay doon. waaye nag yal na ko yàlla defal jàmm. yàlla ko defal ko fan wu gudd yàlla defal ko wér defal ko njabootam bi yëpp. ak sayel. network network bi daal ca kaw ca kanam rek. na mel ni tux su bën na. mooy déggal mi la maa eh muy sama ndey ah kado eh mooy sama xarit ah. Adalaay woo Aïcha a ngi nii ah. eh ah, COVID-19 corona. COVID-19. COVID-19 corona. COVID-19. COVID-19 corona. COVID-19. COVID-19 corona. Doktor yaa waaru. Messe jaaxale. Ah. Président yi jaaxale. Fu ah. leen dawatul. Amas ah. ko tëj. Aéroport tëj. Jàkka yi tëj. Corona tëj. Sabari. Derrière sax dañoo derrière sax dañoo defin. Derrière sax béyee fi mu jot sabari benn sax dañoo béy dañu naan li laa war a sóol yàlla na fi seewal bi jóge allahumma te mu doon ay nettali ci ñun rek mhm. bokk yeen plateau dafa neex studio bi fi mu toll mu ngi toj mhm. mu ngi neex parce que foo leen damay gis sama gars yi ñu ngi dem dem yu baax dem yu garaaw kon nag mun nañ tàggatoo ma mhm. mal mun nañ tàggatoo tàggatoo bi kii nag féetee <laughs> tey fi mu toll maa ngi place kii féetee nag sama ndeyjoor mooy Miss Ada di ba? Ada di ba? Ada di ba? Kira-kira Machamon, mm-hmm. Moy Miss, Aisha, saw pulo jeri. Borom nagag mewi. Borom nagag mewi. Aisha Ndula nga rek to jaakoro man ak sama gay gentlemen sama nga xamantene fu li baxé rek ñom la. Mm-hmm. Ndaxte ni nan les hommes de l'ombre comme France ñu ko ñi xamantene dañoo nekk ci ginnaaw di liggéey pour ñu ñu ngeen di gis. di def noonu ñooñu ñooy ñor liggéey bi. kon nag di kontaan ci network network bi baax na. partagé leen network.